rahmatullahi mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu bu baax yéen ñëpp di leen baalu it ak bu baax a baax ñu ngi leen di ziyaara bu baax di leen baalu àqit bu baax a baax yal na nu yàlla boole baal di jaayi rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam ñu ngeen nuyu sunu mbokki sikkaab yi di leen ndokkeel nii ko sunu mag ji wax baax ji waxe sànq ci tellu ci waatu xew-xew bi yàlla dogalaat def gi ndax ah ok jërëjëf na mu dunda yow ok loo xam ne mën ko taxul nga def ko te mun a gàññ ak njariñ bëgg ko it taxul nga mën ko te mun a gàññ ak njariñ ku yàlla dogal ci yow bëgg ko mën ko mu dimbale la it nga def ko am nga jagle am nga jagle gu mu la jagle déglu leen loo xam ne bëgg ko taxul nga mën ko mën ko it taxul nga bëgg ko bëgg ko mën ko it taxul ñu dogal nga def ko ñett la bëgg ko taxul nga mën ko mën ko it du tax nga bëgg ko bëgg ko mën ko it du tax nga def ko kon ku yàlla dimbale ba nga mën ko mu roof ca mën nga bëgg dogal ca bëgg nga def ameel nga borom bi cant su dee luy jur ëllëg yool ndax yëngu-yëngu jaan du ci boppam dafa am ku koy yëngal waaw te fu mu ko jëmaleen fa la jëm yonente bi wax na ci hadis ne qalbul abdi bayna asbu'in rabbi yatasarrafu kayfa yasha nee na xolob jaam bu ne mu ngi ci diggante ñaari baaraami yàlla yi ci la ko fekk di ko tourné nii fu mu ko tourné nag mu tourné ànd ak moom jëm ndax mooy nit wax na ne jëmmi doom aadama jëru leen cër a ngi ci cër bu tuuti cër booba bu yéwénee jëmm jépp yéwén bu ayibee jëmm jépp ay su ngeen xamul cër te cër ba lu mbus deret la tollool su ngeen ko xamul mooy xol jigéen ñi ñu ne ngeen déglu yéen a ngi yàq jàng yi e kon lii sunu mag ju baax ji wax ne bu nu amoon beneen baax billaahi kon ñu wax ko sant ko yàlla ci xiiwal gi nu mu nu defal boobu wax moo dëgg daaw ba ren kii ñu ne muy juin soixante-six am nay jamono déwén la tuddoon ba muy tudda déwén soixante cinq mille mu relevé moom lañ doon wax ren doole ji puus soixante cinq ba ñu di ko wax daaw moo bip soixante six ba mu tudda ren diggante boobu nag dooleeg waaneeg mën-mën ak am ku la jàppale sottalu ko ndax fukki weer la ak ñaar weer wu ci nekk fanweeri fan la mbaa ñaar fukk ak juróom-ñeent fan bu ci nekk bëccëg ba am na fukki waxtoog ñaar ngoon nga am na fukki waxtoog ñaar waxtu wi ci nekk am na juróom benn fukki minit bu ci ne am na juróom benn fukki seconde benn seconde bu ci nekk sun borom dina ci gestu dina ci gestu jaam yi juróom benn fukki junne yi gestu gestu bu ne dina toroxal juróom benn fukki junne yu nekkoon ci teraangal dina teddal juróom benn fukki junne yu lottoon dina tëral juróom benn fukki junne yu doon waaxuy ñëw yëkkati juróom benn fukki junne yu taxawoon dina fab juróom benn fukki junne ci ndiggi bàyyi yor parti ci jigéen ñi roccee ci biir jigéen ñi juróom benn fukki junne taxawal ci suuf taxal juróom benn fukki junne ci suuf dëf ci biir suuf ah ah ah seconde ak seconde nag ni mu bare ni mu jege ñi ku ci mucc bés mucc ci semaine mucc ci weer mucc ci at ñu dawal baat ma dellu si waat mu di la dummóoyo ko fenental rek te ni mu amee droit ci ñëpp ni la amee droit ci yow te ñamuy song defuñu ko loo ko deful dafa loo ko it luñ ko defalul deful la ko deful la ko defuñu ko loo ko deful xam nga def tooñ la waaw defal teraanga la ma ne li mu lay wiiri yëpp ña muy song terewul defuñu ko loo ko deful yow mi fi bayit dafa loo ko luñ ko defal dafa def di machine tiim rek di la wiir nit di roo ku ñuy ñiimantal kon booy tourné di tourné ba bés ba dellu siwaat lu ëpp alhamdulilahi naam ku ko amoon wax ko du noonu di jaay rasulillahi te tubaarkàlla aju tubaarkàlla allah yu jaasi kaana xeer allah jaasi ma yéen si yàlla wax naa la nag dara yàlla taxaw dara loo gëj a gis bul defee ne dafa léeb doxe na noonu tàbbi tàbbi géej déedéet mu ngi ci keneen mu ngi ci yeneen yeneeni loxo lu jóg ci say loxo mu ngi ci yeneeni loxo fii mu ne nii amul daraam lu taxaw daraam déedéet daraam taxawul soo waroon léegi te am kattan nag mën a matale li mu moom ak fi mu moom fépp ak ñi mu moom ñépp nga mën koo matale nga xam ne daraam taxawul fii ma toll di wax guddi gi toll fi montar yi toll fi heure yi toll fi ak minute yi lu nekk ngi xew am na am na sukuraat su borom génnagul addina fii nu toll nii soo waroon teg ko bët sukuraat soo xam ne borom a ngi ca diggante falolaay sa balakati taraxiya wa xiila man raa wa rënaanul firaq wul tëfati saaq bi saaq ila rabbika yawma sinil mawaaq aal boobu doomu aadama ngi ca dara yàlla booyul dara am doxul daay fi mu ne am na jigéen juy wasin ju sottalagul am na ku ñuuxu mu mat doom jóge na léegi ci ginnaaw yu bàyyam ñu dugal ko ci biir ndewet am na fa asamaan di taw di sébbi am na ñuy góob am na jant buy door a fenk am na ñu toll ci yor-yor yëpp may doxandoo dooleem tolloo noonu te sërifaatam day na noonu ak mënam it mën na noonu dara waaw. بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو غني عنكم yéen ñépp bayuma kenn yéen nit yéen ñépp laa wax bayuma kenn li ngeen di bari bari bari terewul kenn ku ne ci yéen am na ci man soxla man nag li may doon doon kenn soxlaalu ma leen dara waaw li ngeen di bari bari bari bari bari ku ci ne am na ci man soxla li may doon doon kenn di wéer defaru naa ba soxlaalu ma kenn dara borom póot yépp naaj rek la ñu bëgg borom raan yi fanaan ngelaw la ñu bëgg borom meet yaa ngi bëgg xeer wu am dara ñi nga xam ne dañu ruuj ba setal ñu ngi séentu asamaan si képp ku ci am ko feebar yaa ngi ne séew mu wér képp ku ci am njàqare yaa ngi bëgg mu dégaase la yooyu yëpp moom lañ koy tàllal amul kenn kuy dukkat di dem te amul dara loo xam ne soxlaal nga ko moom nag amul kenn ku mu soxlaal dara noonu la buur di mel door a mën buur dafa defaru lu yàgg door a defar kenn dafay defaru bañ a defar kenn di defaru rek di defaru te defarul kenn moom yàlla defaru rek di defaru te defarul kenn di defaru rek di defaru bañ a defar kenn ba jële ci defaroom mën a rey ñépp te kenn mënu koo rey mun a doyul di defaru di defaru ba mën di gis ñépp te kenn du ko gis di defaru di defaru ba ëpp ñépp kàttan te kenn dabu ko di defaru di defaru ba fu nit ne mu xam laak noo fa nekk koo fa neal te bàyyi nag di defaru ba li muy doon doon kenn dooleem ji xaabaabam ci doole ci ñépp di defaru ba yéppam pare bëggalul kenn dara mu néewal ñépp doole ku ne aaju jëm ci moom bu dul tey di ëllëg waaw bu dul tey di feneen moom moom moom moom moom lu mu la jaye ba loola di la gunge dina la dab rëcc la doomu aadama yépp ñoo bokk fu ñu jëm ñoo bokkit nañ fay àgg ñoo bokkit luñ fay yóbbu amul kenn ku départ te jëmula fenn lu dul kóosi bàmmeel foofu rek nga jëm foo jaar passage la waaye taxul laa jóg ak waxambaaneeg ak aafak ak bërlóorëg door a àggaleeg yéppi passage la yóbbu la fa yaa nga jëm bàmmeel bàmmeel it lenn rek nga fay yóbbuwaale jëf dong ju baax mbaa ju bon yàlla ñu yàlla xiir ci ju baax lu dul loolu nag doo ko yóbbuwaale fu dul foofu it jëmu la fa fu dul bàmmeel jëmu la fa lu dul jëfit doo ko yóbbuwaale balaa ngaa àgg mu rot mbaa ñu dab la nga rotal ko mbaa nga sonnoo bocc ko balaa ngaa àgg mu rot laa wax li nga kepp li nga bokk li nga ëmb li nga denc bunti bàmmeel balaa nga fa àgg mu rat mbaa ñu dab la yëlëb ko ba mu rat mbaa nga tiit ba wacce ko mu rat jëf rekk fa yàgg jëf dong dong moo fay àgg te it foofa dong dong nga jëm feneen foo jëm feneen foo romb fu dul foofu rombukaay la fa nga jëm kon ku yàlla dimbale ba nga mën a ba man ba nga mën koo rafetal teel mu dimbale la ba it nga mën a nekk ci loo xam ne soo duggeek moom du la indil fitna te sa coobare duggalu ca war ngaa sant sa borom nee naa jamono bi ngay dem di ñëw yow nit ki di dem di ñëw di dem di ñëw ba mënatulaa dem say bokk di la demee ca kala daan dem loo ma ne booy dem di ñëw di dem di ñëw ba mënatulaa dem mënatulaa ñëw say bokk di la demee ca kala daan dem loo fa ngay xamem ñu mujj faa jaar ak yow dóor la faa yóbbu war nga faa bàyyee tànk bi ngay mën a dem maa ngi koy waxaat ñaari yëf la nag ma ne booy dem di ñëw te kenn du la tett kenn du la may loxo nga jóg utaluñ la banta booy sukkar bi ko da nga naan ñokkat ne sat ne jaagam jaagam dem dikk sa jamono yi mën loolu di wëtti di job si di wëtti job si soo demee ba mënatulaa wëtti mënatulaa job si say bokk na la cas di la yóbbu ca borom kàttan nga laan dem loo di la dikk loo fa ngay xemam ñu mujj faa jaar ak yow dóor laa yóbbu jamono bi ngay dem di ñëw war nga faa bari looy dem ndax xam ngeen foofooy fan ah jàkka ja waaw kañ waaw kañ bu ñu xasee sang kañ ba tànk ba takk tànk takk loxo yi foofu teen def ci gémmiñ fatti bët yenu kenn du wax biri bureau kenn du wax garage kenn du wax grand place kenn du wax hôtel ba kenn du wax bitig ba kenn du wax assemblée kenn du wax daara ja dañ naan rek jàkka ja foofu nga xam ne fi dañu bëgg mujjee jaar ak yow yépp la sa borom jamono bi ngay demee sa bopp war nga faa baree dem banqal sa baram jamono bi yàlla bëggee lit ngay def di def di def di def lu ñu di la def ngay def di def lu ñu di la defle def goo xam ne doo ca ñaan loxo doo ca ñaan ndimbal ngay def loo bëgg a def def ko ngay def lu it loo bëgg a def lu ñu defal la ko ñu di la def la it ci li ngay def nga dem ba mënatu laa def li nga gën a bëgg a xanam ñu mujj la koo defal door laa yëpp kala daan def loo loolu it mën naa baril ci biir def loolu na mu tudd julli am déet waaw kay nit ko bu ñu xasee bu ñu xasee sang ñaari rek ñaari dem dem bi benn la lañ ci lañ ko taamul jëf-jëf ji benn lañ ko ci taamul dem yi mu daan dem yépp jàkk ja lañ ca taamu jëf yi mu daan jëf yépp it julli lañ ca taamu kon ci sa jamono yi jëf fàttalikul julli moomu bareel ko tey yeneen dem it nga fàttaliku jàkk moomu bari loo fay juux téere yi d'accord nañ ne dinañ teg léeg-léeg niiw ci bunti jàkk jàkk ji wéq ko doxub juróomi téeméeri at donte nit ñi tegu ci seen bët mën ngaa bari bokk nag mbaa ngaa mas lëf ba doomu aadama yi defal la loo xam ne yow woo ko woon a def ngir am kuñ la wegal mbaa luñ la wegale waaye Fatimati yonent yàlla Muhammad mooy baayam am na ay ngëneel yu dul jeex sooy xool da ngay defe ne moom rek la Nabi jur déedéet am nay mag ñu Nabi jur yépp moo ci gën di gune fanweeri at ak benn la dund fanwe guddul sët yépp moo leen jur say na baa ko mag roqiyatoo ko mag ummu kalzooma ko mag ñoom ñépp ñoo bokk xadijatu bokk rasulullahi waaye mooy sayidatu nisaai l alamina fi l janna gëstu nañu nag lu tax loolu mën a am parce que nit li tax nga war koo gën da ngeen di bokk ndey uta baay ñu ne baay bee tax wala ngeen bokk baay uta ndey ñu ne ndey bee tax waaye benn baay xereñ genn ndey xereñ ñu mag la fopp nga xëy gën foo jaar ba gën fa fatimatu la tudd tur wi ñu ngi ko xottee ci fattam fattama ji firi fer feral nañ ko ci safara du ko lakk ba tóol lañ ko daan dàkkantal mooy koo xam ne dafa laab ko amul amul sobe dund na ba dee musula mbërëb bu wasinee fa mu wasinee lay julli deret doo ànd ak moom ndax ca leere ajjana lañu ko joxe rasool mu lekkaale ko ci pom ñëw fab leer ga jébbal ko Xadija bokk na ci teraangaam ca asamaan yi lañ ko maye yàllaa ko may wax ko Moustapha ndax booba Ababacar a ngi koy bëgg di xarit ne bi te amul ndigal si naaw ma rit bëgg na ko waaye portele rek lañ ko yëpp la ko Jibril yëpp muy portele ali nim na bi taalib ñu ne ko suñu borom ne borom jëmm ji may nañ ko Fatimatu ci asamaan yi juróom ngaa na beeg mandoom ngaa ak ne kaa lii jegeñ ci bokk la la la la tàllal portele ba ku ne mu ne la kii kana ñu ne ah kii de alio kii kana ñu ne kii de alio mu ne kon kat sunu borom ne na borom jëmm ji may nañ ko Fatima ci asamaan juróom ña alaaji Malik sax am na lu mu ci wax waaw waaw waaw may ma ko xadim kayoha sëyloo la ndaw soosu ku ko sëyloo arrahmaanu buur yàlla fan fawqa samaa yi ceeg ko waa samaani juróom ñaar aka sori pay buñ ko maye aka mag ku ko maye yàlla ko maye ñu ngi ko maye ci asamaani juróom ñaar alaaji malik ne wa faqran laha doyug tiitir doyug tiitar mu ngi yem ci sëy bu yàlla fas ñu fase ko ci asmaan juróom waaw la woon sànq ca laamiye ba la ko Maodo wax fii ci miimiye bi la alaaji Malik ne lillaahi maa ngi yéem buur bee kattanam lillaahi ma dellu di yéemu ci lan taswi joñ sëy goo xam ne xadiq bara hu nettali si na am nga jibrilu jibril jibril a cëppeelu ne may nañu diw diw may nañu Fatima Ali soxna soosu foofu la baaxaay mën a yem nabi di sa baay ali di sa jëkkër nga jur asan ak useynu nga xam ne marjal bahrayn yaltaqiyaani baynahuma barzakhun la yabqiyaani ñoom ñaar la fi la baaxaay mën a yem waaye papaam ci jamono mujjug wax ak nit fatimati ca ña mu mujjee waxal ca la okk na ko mu sëgg